Louga bi nga xamante ni astu soxna deewam bi tax na rek tuuru luga daal di siiw lool ci réew mi ak ci àdduna bi beneen jéyee xewaat na foofee ci diwaanu Louga Penda Sall yi nga xamante ni moom dafa daal di mucc ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril ci benn clinique bu nekk ci ancienne route bu Louga yàpp ni sax nag moom gannaaw bu mu wasinee ba noppi dafa daal di xëpp nag déret gu bëre ñu jëlee ko ca dispensaire Ibadou Rahman bu nekk fële ci diwaanu Louga yóbbu ko ci clinique ancienne route jàpp ni sax Penda Sar moome ay atom mu ngi toll ci ñaar fukk gannaaw nag bu mu yegg see ci juróom-ñeenteel gi weer gu ëmbam mu daal di dem ca dispensaire Ibadou Rahman bu nekk ca quartier artillerie nord bu Louga mu sukkandikoo ci l'observateur mi xëyee googu xabaar xam ne na ni njabootam dañoo tànn sax boobu lépp dispensaire ndax grève gi nga xamante sage-femme yu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga moom la ñu gannaaw bi nga xamante ni nag na ba noppi moom Penda Sall nag ci la daal commencé xëpp déret gu méttee métti waaye nag bu ñuy woowee ci diwaanu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu ngir laaj deretam ba xam ndax am na di groupe sanguin B ñu ne leen nag benn poche kott moo fa des poche boobee nag mënalul dara Penda Sall gannaaw bu mu muccee ba noppi xëpp déret bu bëree ci clinique bi nga xamante ni la wasine gannaaw bu ñu gisee nii rek Amadou Sakhir Mbaye amuñu woon déret B plus ci lim doy ñu daal daal di woote fële ci diwaanu Saint-Louis Saint-Louis nag ci banque de sang bi amoon na groupe sanguin boobu di B plus waaye nag xëpp deret gi mu xëpp ak sonn gi mu sonn tax na balaa ambulance bu jegee Saint-Louis ba yegg si Louga di yegg si ba ñu koy daal di jam perfusion bi ci la daal di génn àdduna l'observateur mi joxe xabaar boobee di wéy di xam ne ni fi mu ne nag am na yenn ci ay organisation sax yi dem topp ci ginnaaw famille Penda Sall ngir ñu porter plainte mbir mi lee